la léegi léegi la Balla Gaye joxe information bi ak euh, benn paa boo xamante ni kooku ñoo dend kër ñaari kër yi ñoo nekk presque kooku nag moom moo wax ma ko léegi ne Double Less dafa génn àdduna faree ca këram bu nekk euh, Kër Massar. Mhm. Mhm. alors euh, ca Kër Massar ban heure nga jot xibaar bi. léegi léegi nii lañ ko jot paa bi kay mu ne bala Gaye daf ko wax rek mu wax ma ko téléphone. Mhm. Alors, euh, une information donc euh, euh, d'avoir notre correspondant Omar Mbaw à Guédiawaye. Omar Mbaw, vous, confirmez la mort de Double Less, le, père de, des lutteurs et Sa Effectivement, on vient de l'apprendre par un des amis du père de Balla qui m'a informé par téléphone. Il vient de raccrocher avec Balla disant que son père est rendu l'âme Euh, dans son domicile qui se trouve à Kër Massar. merci merci Omar Mbow. merci kon mbokk yi ma ngoog euh, xibaar la bu ñu dab léegi ne kii di Double Less di bàyyu Balla Gaye ak Sa Thiès dafa mujjee gën a dina kon xam na nañ ci ñëwaat ak ci kanam incha allah salaamaaleykum.